إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñi ko ñaan mu julli suñu yenente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ki sahabaam ak ñi koy roy ba ila yawmi din sun xutba tey bii mi ngi jëm ci fàttali jigéen bi nga xam ni moom la suñu boroom yàlla tànn ngiree mu jàppale ca dalal ki nga xam ne moom la tànnoon teg ci moom mission bi gën a mag bu mu sas doomu aadama ca mooy yónni ko ci mboole mi mbindaafoon kam tànnaloon ñeel ko mu jàppale ko ci jéegoom yu jëkk mooy soxna Khadija bintu Xuwaylid e way ndaw ñi na doon góor ak jigéen bàyyi leen xel turu soxna soose kooku nga xam ne mooy njëlbeenu soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jural ay doomam moo ko jëkk a gëm soxna la soo xam ni bokkoon na ci ñi ëpp alal ci makka doon liggéey ci wàllu commerce loo xam ne da ci daan jëriñ doomu aadama yi loolee taxoon na ba da daan tànn ay ndaw di leen jox marchandise ñuy dem ci Syrie di ko jaay di jëndaat di indi mu bokk benn bis yi bis yi mu woo benn ndaw bu nekkoon Makka ñu koy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk ñaar fukki at ak juróom la am daa dina ko dama bëggoon nga yóbbul ma sama commerce bi ca Sham ca Syrie yonent bi alayhi salaam jël loolu mu boole ko benn jaamam bu ñuy wax Maysara ba ñu demee tukki Sham ba dellu si mboolem bénéfice bu ñam doon liggéeyloo doon indi muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi na duubalam xadija yéemu ci loolu gannaaw ba mu boole ci jaam ba mu àndaloon di may sara ne ko ay sama sang ba ma dalee gis nit ba tey musuma gis ku jube ku maandoo ku yaatoo ne muhammad mi loole nga xam ne nii xadija yëg na ko ci maandu teem ak ci am xelam ak yaatoom moom ci boppam moo proposé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yonent bi nekk borom këram ca loolu it di mbir moo xamee ni nii tumuranke na sunu jamono yi tey waaye loolu da daan am ba xatta lu bëri sunu maam yi ca mooy soxna bi nga xamee ni nii nekkul ak borom kër loolee dara nekkul ci mu gis góor goo xam ne wóolu na diineem wóolu na ngorom mu daal di koy dénk la nga xam ne mooy boppam bu ñu xoolee sëy bi gën a tedd ci kaw suuf loolu mooy cosaanam mooy soxna Khadija moo sakku yonent bi alayhi salaam nekk borom këram ba mu nekkee borom këram mu jël alalam jël bakkanam teg lépp ci loxoom ne ko sama alal mi ngi ni bu ma ci taggu ci dara la nga ca jël moo ma gënal la nga ca bàyyi loolu it nekk benn leçon ay yéen ndawal julit bokk na tey li gën a jafe nga am benn commerce am ndaw boo ko dénk ak a jafe suñu jamono tey am na kenn ci commerçant yuñ daan jullee ndool fii ci jàkka ji nee na ma jeexal naa sama famille jeexal naa sama famille soxna mboolem ndaw boo indi ci magasin bi balaa yàgg rek deful na ko su dul noonu képp koo bere jox ko alal balaa yàgg mu def na ko sudul noonu waaye mbokk seen yonent jàngalu leen loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam maandu te gem amoon ca commerce bañ ko dénke woon ca la ko yàlla fay wëlbatiku nekkoon na employé yàlla def ko patron boole ko mu nekk borom këru patron lii lépp yewit ndawal julit maa ngi lay bégal heure buñ la joxee caisse heure buñ la joxee magasin heure buñ la joxee responsabilité nga ragal ca yàlla jaare la ko fa neex yàlla wallahi yàlla dalay yokk waaye yàlla du la xañ bàyyi leen yàkkamti doon leen ñu ànd ak dal ak teey sa wërsëg bala ngaa dee da nga ko jot loolee xamleel na yow ndawal julit trésor diplôme bi gën a rëy bi nga yóbbaloo mooy nga maandu mooy nga jub mooy nga ragal yàlla yal na yàlla defal ko suñuy ndaw mbokk soxna soosu noonu la ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam diiru fukki at ak juróom ci sëy boo xam ni sëyu jàmm sëyu bànneex waa màkk yépp respecté leen kii di Xadija dañ ko doon tuddi ab taahira mooy soxna su laab si sunu yonent muhammad alayhi salaam ñu tëddee ko muhammadul amin mooy muhammad mu wóor mi kon kër gaa ngi noonu al amin ak al tahira màkk yépp fonk leen waaye nag mbokk suñu boroom daal di bégte ci mbir daal di ñëw tànn suñu yonent def ko la nga xam ne ni mooy yonent bi yàlla ba mu boole ko jibril ca xaaru xira yonent bi alayhi salaam ba jibril dajeeg moom ci mbir moo xam ne bu gudd la ba mu jógee ca mont ca montagne ba ma nga ànd ak tiit ba mu duggee ci kër ga li muy jëkk a wax Xadija sàng leen ma sàng leen ma zammiluuni zammiluuni ànd daal di ba mu demee ba dal ba dal Xadija ne ko lan la mu ne ko ah man day ragal naa sama bopp mbaa sama xel mi du dem netti lu ko ne dama jommi la ko dikkal ca biir grotte ba xaaru xaaru xira bi loolu amee Xadija wax ko wax joo xam ni bépp soxna war na caa bàyyi xel ci heure bu jëkkëram ñëwee ak mer heure bu jëkkëram ñëwee ak tiitaange heure bu jëkkëram ñëwee ak jaaxle ngal la waaye bul yokk mer ma bul yokk jaaxle ga bul yokk tiitaange ga waaye lan la ko wax wallahi yàlla du la toroxal mukk ci àdduna kalla wallahi la yuxzika allahu abada yow yàlla du la toroxal mukk ñu naan muhammad daa dof nekk ci dëkk bi déedéet yow mi nga xamee ne nii yaa ngi jokk sa mbokk lu baax lu ne nga defal leen ko ay yow ndawal jurit bi may dégg jëlal bind boobu tey ñi ngi ci jamonoy relation jamonoy intérêt fàtte nañ mbokk waaye ngal la waay say mbokk ñang ca tane ak ña la ca tane ngal la waay jokk leen gannaaw ba mu ne ko wa tasdiqul xadis yow loo wax dëgg la mbokk amul kenn kuy dëgg ba pare yàlla di ko toroxal abadan gannaaw bu mu ne ko yow dey yaay ka nga xam ne yaay gàddu ñi néew doole ñi mboolem ku néew doole yaa ngi taxaw ci wetam lépp loo xamee ne nii ab faqiir ñàkk na ko bala ngaa nelaw da nga ko ko wutal mboolem gan yi ñëw ci makka da ngay jëkkante ngir fat leen koo dégg ci waa makka ne ndogal dal na ci kawam yaa fay jiitu wallahi doo boole lii ba pare yàlla dina toroxal hadis boobu Buxaari soloo na ko loolu mbokk muy wane borom jukko ju kawe ak mbaax ku mel noonu yàlla koy sàmm yàlla koy yokk yàlla du ko toroxal mukk ca soxna soosu nga xam ne mooy at-tahira soxna soosu nga xam ne moo amoon expérience ci wàllu àdduna doonoon ku jub yàgg gis gis nañu ne noonu la dalale suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam daal dina ko kaa ñu dem ci doomu bàjjenam bu ñu wax Waraqa ibnu Nawfal nga xam ne da doon jàng tawraat ak injil ba mu demee mun a ko kaay déglu sa mbokk bi li muy wax ba Waraqa dégloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko bégal yow yaay ki yàlla tànn nga nekk yonent ki la dikkal kooku mooy Jibril moo doon dikkal Muusa ak Isa ay waay ak a neexoon ma nekk ndaw jamono bi la waa Makka di génne mu ne ko génne mu ne ko wallahi lii nga indi amul ku ko mas a indi lu dul ñu génne la na am naka Waraqa waxe woon noonu la demee keroog ba yonent bi alayhi salaam taxawee ne laa ilaha illa allah fekk kaaba ga trois cent soixante yàlla mën ko wër bokkul ak yàlla yu maggee di laat ak uzza ak manaata mu ne leen laa ilaha illa allah ñii ngeen di jaamu yépp ay xeer lañu mënuñoo jëriñ mënuñoo lor mboolem mbëggeel gu waa màkk bëggoon al amin ak taax ak ak taahira muy muhammad ak xadija keroog la wëlbatiku nekk nooneel goo xam ne nii kenn mënu koo lim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la commencé dund ay coono soxnaam soosu taxaw ci wetam gën jaare fi ci taxawaay dem nañ ba waa Makka sonn ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ca atum jureen ñaareel ba ca gàddaay ga ñu daal di daje seen congrès ba ca Makka daa dina daal léegi lenn doo nga mën a xew muhammad dana bàyyi waxam ji muy wax wala waa bani haashim daan ñu ko jox ñu rey ko bu dul looloo ñun ñépp daan bokk boycotté waa bani haashim bu kenn waxati ak ñoom bu kenn jëndati ak ñoom bu kenn sëyati ak ñoom bu kenn nangoote ñuy jaar fenn bokk loolee ba mu amee la waa bani haashim daal di dem beru ca la ñuy tuddee shibna abdul abdul mutalib benn gox diggante ñaari montagne ci makka waa makka yépp boycotté leen Khadija mi ngi bokkoon ci famille bu am bu bu bu baax amoon alal daa génn këram dem fekki waa bani Hashim fa ñu nekk ñu nekk foofee seen coone ba seen tumuranke ba képp ku ñëw Makka di jaay la nga nar a jaay bu ko waa bani Hashim na dee jënd waa Makka jël la lu duubal jox la ko demoon nañ ba diiru ñetti at waa Makka dañ daan toog dégg jooyu xale yooyu jóge ci waa bani Hashim amatuñu lu ñu lekk amatuñu dara Khadija gannaaw ba mu nekkee ci aristocrate yi gën a màgg gën a riche mujj dund pauvreté bu bu tar boobee coono bu tar boobee ci diir boo xam ne nekk na diiru ñetti at waaye teewul mu taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba baa yàlla di jeexal loole bokk na ci loolu mooy kii nga xam ne mooy Abi Lahab saay-saay bu bon ba dem na ci ay doomam yi nga xam ne ñoo takkoon ñaari doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di umu kalsuum ak ruqiya ne leen fasaleen leen ñu dellu seen kër bàyyi ñu fasaleen mbokk xoolal soxna bu am ay doomam yóbbu leen ba ñu sëyi benn bëccëg ñoom ñaar ñépp ñu dellu si waat loolee nekk coono bu rëy waaye Xadija mun koo xam ne lii lépp lan moo ko ko teg mooy gëm gim gëm boroomam jàppale gim jàppale ab yeneen tam lii mbokk dem nañu ba bañ jógee ci ñetti at yooyee ak coono yam fa daj yépp teguñu ci lu ya lu néew suñu borom yàlla jël xadija radiyallahu anha xadija boobee daal di faatu ñu teg ci ay fan yu néew wala boog abi taalib daal di faatu ñu teg ci ay fan yu néew xadija daal di cay topp at boobee dañ ko tuddee woon amul xusn mooy atum tiis ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki gënoon a màgg ci moom ci ñuy dund ci kaw suuf ki ko ëppaloon njëriñ ci ñuy dund ci kaw suuf di Khadija bint Xuwaylid noonee nga xam ne faatoo na ko mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo dogal loolu ci moom mu dund ci coono islaam ci diir boo xam ne nekk na ñaar fukki at ak juróom mu ànd koog yonent bi fukki at yu mujj yi nga fekk ci lislaam fukki at yépp ati coono la fukki at yépp ati ati fitna la waaye lan la ko yàlla fay bis la yàlla yebel jibril alayhi salaam ne ko ay ay ay jibril neel muhammad maa ngi bégal kii di xadija ci kër goo xam ne dana nekk min xasab mi ngi noonu kër goo xam ne nii ay perle lu lu lañ ko tabaxe tey jii ñu bari mosuñoo gis sax lu lu mu ay perle yu cher yoo xam ne nii ay yasente ati kuraay ñi jigéen ñi am xaalis ñoo koy defar ay caq waaye sunu borom mu ne dana tabaxal kii di Khadija château boo xam ne nii ay perle lañ koy tabaxee mi ngi noonu faye ko loolu gannaaw ba neen neen Muhammad man yàlla maa ngi koy nuyu Khadija bint Xuwaylid ak fiq ba mu àndaloon ba ko yonent bi alayhi salaam ne ko ah Jibril nee na yàlla mi ngi lay nuyu mu ne ah allah di huwa salaam yàlla moom mooy jàmm ay kenn du delloo ci moom jàmm ndax huwa salaam waaye wa alayka wa ala jibril salaam amma yow yàgg jibril yal na yàlla wàcc ci ñoom jàmm looloo tax ba dañ ne mboole mi saxaaba sax xadija moo leen ëppoon fiq ndax saxaaba yi bañ demee ca madina bokk na buñ daan taaye dañuy wax assalaamu ala allah yal na jàmm nekk ci yàlla ba yonent bi alayhi salaam tere leen loolu mbokku xadija mi ngi noonu ba amul lenn loo xam ne añee na ko ci liggéey bu màgg ba mu liggéeyoon ci kaw suuf waaye xoolal la koy xar ci aljanna loolu it mbokk lay nekk jubluwaay ci xutba bi nekkul rek dégg xadija fii la jaaroon ñu ne iskay iskay waaye dafa am bind yoo xam ne dañ ko caag war a dégg nga la wa yow jigéenu jullit moytul yàq alal alal ji yàlla teg sa loxo mu am natt yu rëy yu ñu yàlla nattoo yoo xam ne rawatina ñun Sénégal Europe occidentaux yi defuñu ko naar yi defuñu ko chinois yi defuñu ko un pauvre boo xam ne day xëy di dajale benn bis mu dajale ay millions daal di koy jël pasar pasaree ko ay mal de tissu ay alal ju dul jeex waddu ay famille waddu ay lu kenn xamul mbokk loolu baaxul joxe sa alal ci ngistal la joxe sa alal ci lu àndul ak ngërëmal yàlla la jël leen seen li leen yàlla wërsëgal ngeen yaxanal ko ku ci mën a am kër defar kër ay nit dëkkee ku ci mën a ubbi commerce commerce ay ndaw liggéey ca loolu moo gën li ngeen di def yàlla bëggu ko xel mu rafet ah rafetluwu ko waaye gannaaw bi it bokk ñu luñ cay déggee ay yéen jigéen a julit xam leen ne li ngeen bëgg muy aljanna yéen ñi gëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam du européen yi ñooy seen royukaay du kenn ci kaw suuf ñooy seen royukaay bàyyi leen xel soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga xam ne nii ñoo gën ci jigéen ñoo muñoon coono ya muñoon xiif ba muñoon mar ba lenn rek lañ bëggoon muy aljanna jàpp leen la nga xam ne muy seen diine xam leen ne de yàlla da leen a jox identité spéciale suñu borom mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal sa soxna yi sa doom yu jigéen yi ak mboolem yi doomu jilit ngal la waaye nañuy jël di muur seen awra zalika adna an yu'raf na muuraay googu ñuy muuru dana nekk benn identité ba ku leen gis xam nañu ne du ñu nit ci caaxaan du ñu nekk di jaxasoo góor ñi du ñu nekk di ah nekk di dugg ci ak njaaloo dugg ci la nga xamee ni nekkul seen noonu loolee ngal la waaye bàyyi leen ci xel rawatina yéen xale yu jigéen yi ngal la waaye bàyyi leen xel ne tey jii xalaat jeex na ca la ëpp ci yéen xalaatatuñu heure boo xëyee yaa ngi tiim sa portable portable bi moo lay téléguidé moo lay won la nga la la neex la la naqari la nga war a bëgg ngal la waay déedéet ña nekk ci gannaaw portable yooyu ay yéeféer lañu yoo xam ne ñoom ñi ngi ci nekk dans une guerre déterminée qui est la troisième guerre mondiale nekk benn guerre culturelle li ñu bëgg mooy adduna bi yépp am benn xalaatin mooy xalaatinu Occident nga xam ne yahuud yi ñoo nekk seen gannaaw bëgg doomu aadama yi ñàkk seen diine ñàkk seen nite su ko defee dañuy nekk seen kaw ba faw jàpp leen ay mbaam ba faw ngan la waay ndawal jurit ñi bu leen nangu loolu delluwaat leen xool leen ña nga xam ne ñoo fondement woon lislaam fan lañ jaaroon ba yàlla gërëm leen ndax kat jàpp naa lool dof dof dof xam nga ne bis dana ma sa ñëw nga bàyyi pale yi bàyyi katkat yi bàyyi lépp ñu gas suuf dugal na ci bàmmeel yow jullit nga yaakaar dem aljanna waaw àddina joojee noo koy amee yaa ngi bëgg a dëkk ak yonent bi bëgg a dëkk ak ay saxaabaam la la koy mooy mooy bi ngay dund nga jaaroon ci seeni tànk ca jaar seeni tànk googu firiwul ne sa àdduna day naqari la wallahi xamal ne ki gën a tedd ki gën a teey dund ci kaw suuf wallahi mooy kii gëm yàlla wéetal yàlla déggoog boromam subhanahu wa taala la ko yàlla di may ci dal xel milliardaires yi amuñu ko présidents yi amuñu ko généraux yi amuñu ko loolee ngeen bàyyi xel ci loolu bu baax mbokk bi Xadija bintu Xuwaylid mi ngi nii yaayu julit ñi royukaayu julit ñi na doon loolee ay góor lañu waaye nag rawatina ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi yal na yàlla def suñu mbooli mi jigéen teg leen ci tànki Xadija yal na yàlla def ci ñoom jukkoy Xadija def ci ñoom muñu Xadija def ci ñoom la nga xam ne nii moom mooy kersa Xadija ak la nga xam ne mooy sacrifice Xadija ñun ñëpp yal nañu yàlla boole Xadija ca firdawsil aala allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين